ba léegi nii amul lenn lu ma yàq ci fonctionnement administration mairie bi parce que comme lu ma waxee rek mairie administration bi ñoom ñoom koy gérer moom ma équipe ba man maa koy coordonné maay chef bi am na ay chef de division am na ay chef de bureau te chaque fois ñu ngi coordonné di di waxtaan di wéyal liggéey bi problème bi ci des daal moom mooy yenn signature yenn signature maire rek moo koy signé et jusqu'à présent comme perdul ay droit am ba léegi moom rek moom moo am droit signé mais am na yenn acte yu sew sewaan yoo xam ni fii au niveau de l' administration ñu ngi koy signé. permanent yi ñoom fay fayeku nañ parce que moom avant signé na ko léegi mu des les temporaires temporaire ñoo xam ne par deux mois trois mois dañuy relever seen contrat ñoom ñoo des daal je pense que comme la ma la introduire nañ demande autorisation juge bi à ce que parafii dugg mu signé te xam naa dinañ ko jox suñu ko joxee peut-être semaine bi euh, yóbbu ko mu signé ko pour ñu mën a percevoir seen salaire